bi sifflé si diggante kii di Cracks ak kii Maal eh combat bi tax teel naa tax di eh song ko daan na ko ko daan na ko da ngaa juum da ngaa juum man waxaguma man wax eh ku si ba mer na. Cracks moo daan Baba Cracks daan na Baba Maal waaw man man waxaguma di balaa ma naan drapeau démb bu